naa ne fii mu nekk nii fii ñuy waxee tey ministre élevage mu ngi sur le terrain parce que wax nañu ma ne tey mu ngi nekk à Ourossogui mun na def benn réunion moo ko éleveurs yi nga xamante ne ñoom ñooy éleveurs yi sànq la recevoir coup de fil ci sama gars yi nekk sur le terrain mais demain aussi eh, moom dana wàcc côté Podor démb la jaaroon euh, région de Louga bon euh, yaakaar naa ne quand euh, yàlla baax na comme lii ma gis euh, si te ma koy dëgg it euh, ñu ngi rafet njoor uh-huh. waaye ci biir loolu it euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy opérateur yu mag yi ñu ngi nekk sur le terrain au niveau de Mali ak Mauritanie ñuy jënd ay xar di jéem a organiser pour wàcc uh-huh. ci biir loolu it ñu ngi jokkoo ak gars yi nekk ci frontières yi mais suñu xarit yi nekk ci yeneen réew yi uh-huh. mais aussi tamit sama Euh, naataanga yi nga xam ne ñoom la bokkal organisation yi ñoom it ñu nekk sur le terrain ñu nuy jox information. Euh, Thiès ñaata la ñuy xaar ñu jëm ci wàllu euh, xaar yi fi war a wàcc. waaw xaar yi moom au niveau de département de Thiès estimation bi nga xam ne état def na ko mu ngi war a tull environ de deux cent mille têtes mais waaye nañu xam ne Thiès moom. Hmm. zone la boo xamante ne bi jaar jàlla la kon. fii lay ñëpp di ñëw aussi bu à partir de fii dana am ñu jàll dakaar am ñoo xam ni aussi tamit dañuy dem feneen. Mhm.